sànq ci sa intervention yaa ngi wax comme euh, euh, GIEC nga xam ne euh, projet la bu état bi taxawal. Mhm. mais am ngeen ci ay njaqare est-ce que mën nga ñëw ci projet boobu ak njaqare ngeen ci am. waaw projet bi dafa nekk boo gisee ñu gën ci am njaqare xam nga projet bi bañ koy taxawal dañu invité ci ancien directeur bi fi nekkoon ñu koy wax Ibrahima Diagne moo nekkoon directeur UCG moo ne ñu am na programme projet bu xamee ne état Sénégal da koy taxawal. te projet bi da leen a concerné yéen kon damaa bëgg yéen ngeen dem teewal seen bopp waxal seen bopp li ngeen bëgg ak li nga bëgg ne moom moom ngeen bëgg mu projet bi doxee ko ah ñu ànd ak moom dem siège banque mondiale wax fa wax joo xamee ne daal ñoo ñu vraiment gis nañu ne ah projet bi buñ ko taxawalee yéen récupérateurs yi yéen na ngeen nekk bénéficiaires yi mais gis nañu ne projet bi ba mu taxawee ba léegi di dem ñun amuñu ci lu dul dañuy rendre compte dañuy rendre compte rek te ñun rendre compte boobu moo ñu soof li ñu bëgg mooy ñu impliqué ñu ci biir projet bi lu ñuy def ñu xam lu ñuy kii ñu xam ndax projet bi tey jii mi ngi dem démarré nañ ko mais ñun amuñu ci benn information boo xamee ne lu dul dañuy rendre compte. dafa bu baax a baax ndax menacé ndax projet boo xamee ne. tey jii Malika ngi ci biir Kër Massara ngi ci biir Thiam Pële ngi ci biir ñun ñu nekk ci décharge bi ñun ñu ngi ci biti kon kay menacé nañu te bu ñu sañoon tey jii fa ñuy nasee ko nocc ci projet bi ñu nekk fa di xam que daf ñoo concerné ci suñu site la ndax it bu ñu fàtte ne ñun du ñu ay dof xam nañu léegi mbalit ni mu mel bu jëkk la naan mbalit mbalit ay ordure ordure ordure léegi c'est de c'est de l'or gis nañu ne tey jii société yu nekk ci Sénégal yëpp tey ñoom ñëpp ci recyclage la liggéey tey ku ci mën a maintenir say emploi ba léegi fi nga koy waxee nii yàlla ak déchets yee tax. sànq tamit yaa ngi wax nga ne euh, sànq am nga wax euh, avant commune bi. mbëbës daana indi chiffre d'affaires am àggoon na ci 30 ba 35 millions par jour. tey jii boo ko dee seet bi commune bi ñëwee nga xamee ne gàllankoor na liggéey yu bëri wàññi ne liggéey yu bëri it tax na ba tey jii booy calculer chiffre d'affaires am war naa nekk ci 15 ba ci 20 yoo xam ne eh, mbëbës mi ngi koy génne boo gisee population bi yëpp daw songu mbëbës ba ñu mën a nekk ay nombre deux mille et quelques personnes c'est que nit ñi xam nañu ne mbëbës dara nga fa te nit ñi fu dara nekk rek ñëpp daw wuti fa donc kon état bi na xam ne ñun xam nañu li nekk mbëbës kon li ñu bëgg mooy ñu jàppale ñu fexe ba yokk suñu koom-koom ndax commune bi am na amul kenn ku ñu dimbale amul kenn ku taxaw soutenir récupérateur yi du maire Malika du maire Kër Massar du état ah. te loolu c'est pas normal